an yow laay njëkk a jox boobu <laughs> yaa ngi raf boobu. très rapidement. 35 pour cent ba 40 pour cent. Mhm. ci ñenn ñi ci seeni récolte mooy yàqu laa dégg le ministre de l' agriculture wax ko mooy li ma Kumba wax léegi la première chose à régler et vraiment loolu war naa mën a nekk pour l' mooy conservation ak stockage yu baax yu ñuy denc ndax yeneeni réew ñu ngi produire ci temps bu gàtt. di ko denc mu mën a durer presque loo xam ni suñ ko soxlaa ci presque at bi danañ ko mën a utiliser. Mm-hmm. loolu mooy première chose bu ko état réglé réglé lu bari ci problème bi mooy problème mu stockage ak conservation mu am nag foo xamante ni daf maa metti parce que état nit ñi yaruwuñu dañ leen war a yar. quand je nit ñi yaruwuñ mm-hmm. mooy nit day bari ay déconné yu muy am personnel mm-hmm. mais état moo koy teg ci yoon état warul abdiquer ñëw di constater comme yow maanaam loo xam ni presque état moo ci échoué. commerçant war na am patriotisme. mënuñu chaque commerçant ñu teg régulateur de prix sa ginnaaw ci ginnaaw waaye nag war nañu am dispositif bu am solo pour régulateur de prix yi. du rek oignon bi problème yi ñu am ci prix yëpp bëri na ay prix yu fi état wàcce wala même homologué ko boo demee ci sa boutique gu koñ duñ ko respecté parce dafa am lu buuba laal léegi ñun dañu am problème mu emploi des jeunes. Mhm. ba pare am ay niche yu ñu mën a jël ay nit te duñ leen fa jël. mais qu'est-ce que nous empêche ñun xam nañ ni ñun régulation prix dañ ko am problème Sénégal. mais tey bu ñu bëggoon a wax nombre bi biñ ci am leer na ma ni lu faible lay doon par rapport ak li ñu te dañ waroon tey par exemple jël jël ñu bari jox leen ay pick-up seen liggéey ñu koy matal. parce que ñaata la ñu rek c'est ça parce que dañ naan tout ce gagne en valeur gis nga économiste yi loolu lañ lay wax lu raar gagner en valeur mm. bu gagner en valeur prix bi prix bi jóg mais attends commerçant bi mën na excité wu mais commerçant dañ ko war a réguler mm. kan moo ko war a réguler état moo ko war a réguler bu nanguwul teg ci tegu ci yoon ñu teg ko ci yoon man foofu lay wax ni état mm-hmm. on doit renforcer les moyens du ci soble kese mais yeneen yu dul sople suñu boutique koñ yi ñun ñëpp on constate que parfois y a prix entre boutique bi ak boutique bii rek tu sens que kenn ki mi ngi teg def lu ko neex par rapport ak beneen mhm. boutique bi te amuloo dara loo xam ni moo koy réguler nga xam ni boutique normale sax boo duggee prix yi dañ ko war a afficher ci yu ci bari te duñ ko respecter te on ne les contraint pas à ce que ñu respecter loolu parce que ñun ñaara ngi dañ leen ragal lool mooy les transporteurs ak les commerçants loo ñooñu état dafa ragal des fois di leen merloo parce que seen ay grève état dafay jàpp ni dafay impopulaire mais dama jàpp ni état dafa war a sensibiliser pour patriotisme am ci commerçant waaye tamit war na di réguler commerçant léegi nag fenn rek laa d'accordul ci affaire yi mooy nañ dem vers trouver des solution mais production bi warul taxaw production bu ñu demee ba sous région bi di wut see ci ñun fu ñuy jëndisee mi loolu sant yàlla la war a doon nañ multiplier magasin de stockage yi nañu multiplier conservation bi ñu mën koo def ba sous région bi yëpp jamono ju ne ñu jàpp ni boo duggee Sénégal mën ngaa am loo fa jënde parce que tey ñun marché sous région bi dañ ko war a récupérer warul yam rek ci ñun te Sénégal bu fekkee ñun ak marché sous région bi mën nañ koo jël tubaab ba daa ñëwoon xool. def tour Sénégal ni yaa je n'ai jamais vu autant de rien mooy fu bari suuf yoo xam ni defuñu ci dara bu ñu xamee ne am na ay manque yu am ci ñun amaale ci sous-région bi mais loolu lu ñu war a encourager suñu ay ndaw la gëm loo leen ni suuf si moom ku ci def yàlla fayaat la ko te mhm. ba pare la demande elle est là mu régler problème emploi des jeunes mhm. mais dafay ànd ak sensibilisation Bouba Ndour li muy wax léegi ci lekk dañ koy dugal ci boppu xale di ko ko tàmbal ci kër gi lay tàmbalee waaye musique sax da daan bokk ci liy sensibiliser nit Badou Ndiaye ba muy way ruy fondé caakiri laax caakiri ngalax cere ak soow mhm. di ko way c'était pour vendre suñu ay produits locaux ñu war a loo nit ñi ni dañu war a fexe di li ñuy bay fii ñu koy dundee waaye ñuy adapté wu par rapport ak lan la ñuy changer suñu lekkin mhm. fi may daaneele nag mooy la bëri directeur ñun nag murid yi moom danañ touché de insha allah rabbi <laughs> murid yi moom ñun le trois directeur bu ma summi mais ñun de il faut ñu touché de am naa xarit bu tudd Bakar Njaay bu nekk Canada ma ngay waaj a ñëw mooy bëgg xel Xelkom ci Facebook bi xam naa ni kenn mënu koo teg nag yi toufe ko donc dama bëgg rek ngeen gaaw trouver solution ndax buuba dafa am lu mu wax léegi ci soble mu ni soble. mooy yàpp nañu trouver solution mais xam nga bu doon pomme de pataas pataas da koy remplacer parce que pomme ak pataas kii exentre la kii arrière la. donc kii mën nay déborder des fois remplacer kii <laughs> mais problème mu soble mooy soble comme genre góor la comprendre non mais xam nga pataas ak pombiteer mën nañu mayante loxo mais boo jaawalee pataas ak pombiteer pataas boo ko jaawalee pombiteer mu saf suukar noonu pataas dafay neex pataas day neex moo tax man la waaye <laughs> xam nga pataas mën naa remplacer pombiteer ah, mais buuba problème mu soble ku koy remplacer mooy wax ni soble genre góor la yàpp la donc soble mënul ñàkk te ñun murit il faut ñu tufe directeur wax naa ko sarak Papis Daouda Badji nee naa ko il faut ñun murit yi ñu tufe rek leen loolu gaaw alors Aliou yow laay ñëw ndax yaa ngi doon yàkkamti toon